biir pàkk bi di fi liggéey yàgg nañ fi lool def fi ay at yu takku nekkoon fekk sunuy waajur ñu sàccan paak bi ànd ceeg nun nu nekk fekk ñoom di yëngu ba dinu màgg ñu dem bàyyi nu fi lii fi am nag dugguleet léegi ba ma wàcce rek baare samay place ñu tëj ñun ñëpp ñibbi ñu daal pàkku làmbaay mi ñu lakk sama benn rek bu nekk fii moom dafay dëkkul fi sax moom parcelle la dëkk dafay ñëwoon da ñëwoon nag bay ñibbi après tàmbeeg lakk gi mu woo ma ne ma baa ngi lakk bi ma ñëwee dugguma ci biir ñu yëpp ci tali bi lañ taxaw ba fi ne kenn dugg ci biir moo tax pour xam lu tax fu mu lakkee lu ko lakk moom du yomb ci man waaw. non fi lañu ñu fekk boobu ñu bégguñu dañu jékki rek xool waaja ñi bi gis ñu ne mi ngi tàkk ci biir ñu xool avant ñuy jéem dara fekk ëpp nañ ay loxo daal ak dem na ba ko fay nee nañ si digg bi daal la commencé si digg bi. Hmm. ñetti lakk yi fi am yëpp ci sama kanam ah ci jamono Abdou Diouf ba nëgëri fu lakkee fa lay lakkee te lii moom métti na lool te ay million ay millions moo lakk ci pàkk bi. démb daal ay 9 heures la 10 lañ ma woo na ma daal pàkk bi mi ngi lakk mel la ah loolu moom doy na waar di mujj ma téléphoné samay doom ñu daw dikk ñoom ñu seetaan lakk bi daal waaye wax dëgg si lépp daal lakk na daal. di leen mastawu rek ñi fi nekk ni alal ju bëri lañu yàqule ñun restauratrices yi yàqule nañ mais commerçant yi ñoo raw parce que seen alal yëpp moo ngi ci biir li ñu yàqule bari na torop kenn mënu ko xayma heure bi daal wax dëgg yàlla alal ju bëri moo fi yàqu. place a lakk am naa benn place ci biir ak beneen place boo xam ne bii amul leen magasin quoi noonu la widdu noonu la noonu rek nga xam ne dañ fi doon wéer ay bant nii mu taxaw. ak benn place boo xam ne bu doon ubbool ak léef léegi moom lakk na place bi ñu doon wéer bante yi lakk na foofu lépp lakk na am na fi ñeneen ñoo xam ne lakkal nañ fi ñetti place ñeenti place juróomi place ak lu ko ëpp lu ko romb euh, xayma bi daal du yomb waaye comme am naa fi ñetti place place bu ci nekk la ma fa defoon lakk na waaw ndax fi mu lakk gi tàmbalee dafa jegeñee ak place moo tax lépp lakk na moom. laa doon jaay ak fenêtre ay buntu ak fenêtre ay bois tous les bois rek xamu ñun bu ñu amee place rek place bu ne dañuy def suñu matériel tek rek. dañu ñore ci biir ah lool mënu ko xayma nak ndax ay bagage la mëno ko xayma ay frigo ay cin lepp da li ci biir yépp lak na. en tout cas dal xam ma ne bari na dé mom bari na dal xam ma suma ko don xayma dal japp na ñetti place yi sept cent mille daal normalement war na ko mat. waaw. Ah. waaw ñetti ah. place yëpp. Ah. waaw man sama ñetti place yi moom moom man. su ma ko doon xayma ci xaay war naa dikki sept cent mille waaw. parce que dafa xat nag waaw mënuñu woon dugg tamit bi ñuy ñëw ñu ngi fii taxaw mais mënuñu woon dugg dafa xaw a xat dafa xawoon xat nag mais wax dëgg yàlla jàmbaar lañ xaw xaw nañu teel a ñëw moom mais mënuñu woon dugg daal. parce que fii tamit dafa xat liggéeykaay la mais dafa xat tamit waaw. ñun ñëpp daal ñi fi ne ñëpp dañuy liggéey góor ñi fi nekk dañuy liggéey jigéen ñi tamit ñun ñëpp suñu xëyee su ba ngoon dañuy liggéey waaw liggéey daal moo ñu bàyyi fi ñu nekk. maa mujj toog ba tëli sax damaa sàpp parce que fii ba ba ba yu ci taatu guy gi fi ma fekk.